Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu mbokki jullit yi mbokki soppe Seydina Alassane Salam sen mbokk adam Salam ñoo ngi topp sayyidna Seydina Alassane Salam ak jaar-jaar yi ci ñi nga xam dañ daan nañ jataay ak mom ngir gëna a nit ñi ci ragal yalla ak jaamu ko ak mayut ak ak bakkar li waral lool modi di Seydina Alassane Salam wax ji ba wax ji jeex kep duglu jaar jaar ak waxam du do def len lu ragal lool yalla ak maytu lool ak ak bakkar tay ñong fi ci Touba ndam tey ji di mardi le 18 juillet 2023 ñëw ci kër ku ñu wax sëñ Balla Aaj fekk fi sëñ Modou Fall mu def ci ay seede ginnaaw sëñ Modou Fall ku ñu wax soxna yaat bi tey jël na ci ay kàddu ak soxna Maguette Niang ñoom ñëpp daan nañ gis seen asan salaam di ci indi ay seede bisimilah. sukk naa di ko nuyu takk ak ceen takk palak takk lam mu xëcc ceen mu dëgër man a tekki ko ma tekki ceen gi. mune ma tekkal lambi ma tekk mune ma tekkal palaak ma tekk mu di góor ko takk takkaay ya jigéen la góor ko dee yàlla nga dem sawara ma la koy tekki ca la ko bàyyi ba léegi nag mu ne góor benn jaar la ca laay takk benn jaar ba léegi takkatuma ñaar jaar benn jaar la koy takk toog naa sama mag sama mag ju jigéen ñu koy xam laa ko faam ñu nuyu ko may tam mu ne ko kaay mu ne ko demal dabu mbur indi ko mu indi ko mu def ko fukki fukki ñett téeméer foo ko ñett saa kon damaa gis ne juróom-ñaar fan nga des na àdduna waaye gën a def mooy yàlla sooy na da nga gudd fan lool sama mag joom nga ñëw la mërgul at te loolu yàgg na toog naa seen soxna suñuy wax say gay sun dëkk mag la woon ñu nuyu ko bay dem mu woo ko woon mu ne ko ah yow da waa dëkk war nañ laa bala wax mu ne ko ah lu ñu ma def mu dañ laa tooñ dañ laa diñ loo doon loo doonut dañ laa jiñ loo doonut te ma nga sa bunde ko sa bunde ko àjjana ba kandang ni lii fek na fa sande ko sun dëkk sa xam bon ko fawal si fawal assalamu alaykum salaamaaleykum wa rahmatulah ah ñu leen di nuyu bu bari di leen ziaré di ñaanal ku baax ki ñu bëgg waxtane tay yalla yàlla suñu borom tolli leeram taas na ci barké ah man nak xamna yeen yan na ma ak mom te it am lu bari lu ma xam ci mom baye li ci dama koy dégg sama yaay ndax sama yaay moo doonoon yaay sëñ bi ngeen di laaj soxna xujja bi tey ndax da nga ne kër gi sa kër waaye sa kër ñaari yoon ndax so yaa mi caam mooma ànd na maag sama yaay ba tàyyi ñëw ci kër ga mu di ko siyaare si ndax ne ab sangama ñëw nañ fa ba tàyyi tax na sëñ bi itam sama yaay wóolëree ma woon ba bu ñëwaa babal nu man def ak si ci kër ga mas nay dajale dugub diggante ngame ak jol ak ndimb di wax ne nañ ma koy tool soxna sa sant bi tey moom boo julul ma ko soxna sa sant bi tey rek la ko daan wax ñu yët ko ko mu sant mu di ko santaane ci dëkk ba waa dëkk ba ne ko nu ndey danoo amutug jot kenn ku ne li nga yor doy na la mu da man mii maag beneen keneen ku mu yorantoo woon ñu wax Yaasin Caam jalbaatu borom këram la woon mu ne ma kon nag bu ngi demoon takkaayu te di ko bojj bët bu set mu tas ab jal ab takk nu boj nu dëbb mu bees sol ko def ba dugub jamat mu yónnee ne neel àll xëy de dugub ja ma kere ba mu ñëwee di ko ba mu ñëwee nga ma ñu wax ko ko daan damay sant soxna sant bi tey damay dem këram sant ko waay daal di ñëw bi mu egsee ñu toog daal di dugg néeg maam tam fa la ko dal mu daal di dugg ci wanag bi génn daal di soxna sant bi tey kaay mu ñëw mu ne ko ndax eh, sawara bi ne ci wanag bi ku ko moom. mu ne ko asalaam ah, am na ci lu ma moom am na ci mu ne ko loo ci moom jëlee ko ci kër gi loo ci moom nga jàlloo ko borom. dañoo bari bàkkaar lool muy wax béy mm-hmm. waaw daal di ko ne bul ma reyal dara de toggal ma blaax te bu ci def soowam sawara soowam sawara mooy soowam béy mm-hmm. man ko bu soobee yàlla day salaam duma ko ci def mm-hmm. ki mu yendu fu mu masa yendu itam daanaka kendal la da koy xaajale ndax kendal la da ñëpp a ñëw bu ko dégg daw si si ko te ku ñëw ñii wut leen wax lu neex lii wut leen wax leneen ah, waaw comme li sëñ bi doon nett li léegi rek mu di ko nett li ay kéemtaan yu baree baree bari waaw ndax astuwaat moom mu doon wax buñ tolloo foofu dafa xëy rek gént ne man dama gént ñu ne ma dellu sa kër nga sëy ba mbala nga mbala nga jóge fi ñu naan ah daa bëgg a delluwaat ak liñ jigéen lañ mënut ak néegi naa ca gëllëg sax rek sëñ bi daal si egsi ñu daal ne waaw ñu de moom egsi rek waa dëkk bi daal daw ñëw ci ëtt la laa xam mu daan toog ci bi ñu commencé mbooloo mii daw di ñëw mu ko ne yow mi di laa jël dalal di sol sa mbubb nag ñu daal dem ci kër ga. waaw defal li ma nag boo bëggul leneen. Hmm. astuwaat di keroog la sol mbubbam. Hmm. te ku ne dox nga ci keroog la sol mbubbam dem ca kër googa. Hmm. ba naga ni ca la jaboote njabootam gi tubaar kàlla. njaboot gi ah tubaar kàlla. nu waay bëgg a mel ne bëgg na koo mel. waaw te it nag eh, am na fu mu yeggal. waaw ku ñuy wax yaa jëbu njaay ca jol daal di di ñëw. mu ne ey wol len ma ke ke la wax di ñew mu ay ay man luma def mu ne ko defo dara ñëwal rek mu daldi exi muda mu daldi di ci kanam ne ko ay salam luma def mu ne ko defo dara dama xamne ne tekkal mak tank bi tekkal mak tank bi ci càllal ak or giñ ci tak tak ko ci at sa gettu ba ca àjjana la la laa lay wax rek way du lenen li waral dañ la jiñ lo defut tay salam man de man de ma ken lu bon te luma way wax ba jegal na la mu ne ko waaw bu bu sa wax nit itam ba nopi mm. ma ngay jiir mm, keneen buy buy wax ak kii balaa nopi rek mu ngay jir fenen mm. ba daanaka kendal li mom li mu jol yegg day daali xaj bu bëccëg bi rek nigal way ma jog dem way xajatuma fi xajatuma fi ndax yeneen ak yeneen yi muy wax nit mu doy war waaw loolu moom fekkee ko sama yaay xujja netali na ma momin mu ne sama mam, kiko ko jur mom ki jur sama yaay xujja Ibra Coro bi tey moog sama yaay ki ñoom dong la woon ñoom ñaar képp sama na ñëw na mas naa ñëw armeel yi daal di ñëw ne ko waaxu ba ca barab ba ne ana barab bi ana borom ñu ne ko borom day Ibra Coro bi tey la tudd mu ne waaw moom de ñaari tax na rek la bàyyi ci àddina di wax ñaar ñu xamul dara muy sama yaay ak yaay sëñ bii ma mu ne ko moom day waaye ah, mi ngi rek ba mu fi duggee ba tey mi ngi rek leeram gaa ngi sarale armel yëpp nga xoj te itam ah, booba tey mi ngi xettalee rek sonn na lool ci ci lijjanti ñu fi nekk leeram gaa ngi sarale barab yëpp moo ne julleeg woor mayu ko ko de ñaa mu ne ah, julleeg woor mayu ko ko de da da daaw déggab jëwam mais daaw déggab jëwam waaw sunu maam ne daawut dégg ab jëwam waaw maanaam loolu mooy bu ñëw buy ñib mbooloo mi ngi jub si ci kër gi. Mm. xëy na ñu ngi koy waxtaanee moom. Mm. moom balaa jub kër gi rek day jooru ca kaw si kar mm. la laa ilaha illa laay faal ne bu ko defee ñu ne su bu wun ma Ibra Colo dee nga gu ñëwati mm-hmm. moom day bu jikk rek din bu gareek reek joorom bii nee na xam nga nee na buy jub kër gi nee na ku koy dégg muy ñëw da ngay daal di noppi waaw moom mooy mooy kenn du mësta dégg joom ndax ba du fekk mbooloo mukk mu yoxoosu yegg si day si kar ca kaw rek ñu dégg ko noppi waaw loolu de xam naa ko ci moom mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mm-hmm. ah kéemaane na mm-hmm. salaam yàlla nañ koy yàlla fayal nag yàlla nañ koy yàlla fayal suñu borom yokki leeram taas nu ci barkeem waaw la sama yaay wan lool rek waaw keroog day wax na fa lu baree baree baree bare salaamaaleykum maa ngi neen di nuyu booba de tout na maa dëgër tuuti waaye da daan ñëw lu dina fu fek bu dikkaa fu mu fekkaa nag moom du du nit ñu lala ko sax ba sax da noonu ci suuf si bu ko defee sama baay Abdou sama baay yëpp ay xaritam la woon moom ndax maam maa mi doon soxnaam da doon sama bàjjen ak baay ñoom bu ñëwaat tibb nii bu dikkaa weccali juróomi ay kii fukki dërëm ki ñaar fukk danaan def ci poos bi moom nu muy kafee ñun ñuy ree rek ak daanu ci kawam la daan def loolu moom xam naa ko ci moom bu dikkaa sëq xaalis bi sànni ne daamoo daam ñu ne yaa ñu ne yaa bari mu sànni nii bu sëqaa jëlaat sànni sunu kanam fu ñu foog ne fa mu jëm fa ca des bu dikkee pare ne ma ñëw leen nag war ma ku ci ëpp le ëppale ko moom moom laay takk bu ko defee ñu ñu ñu daanu ci kaw moom daaw seex lu gone lu mu amaa rek jox ko gone yi bu ñëwaat lu comme nii ñu wax bu daan dem dañ koy takkal sareet sama baay ñoom takkal ko sareet bu buñ ko mësaa dégg ci dëkk ba ñëppay ñëw suñu Alassane ñëw na tëgg suñu Alassane ñëw na ñëpp di ko siyaare moom koy ay jaar jaara moom ko ci wax li ngay wax ba suba rek te du jeex baax la woon. sama xarit a bàyyi la woon moom it tudde woon na ko doom suñu alasan mooy sama ñeenteel bi tofa waaw waaye takkaay li it da ko daan bañ comme li Baye Moudou Fall mi wax sama baay da daan takkaay ceene xaalis ak ak i montar ak palaagi xaalis yi waaye fu mu ko fekk amat réew ma la woon lii di xëcc du ca teg baat waaw loolu xamoon nañ ko ci moom moom dëgg salaam yal na yàlla yokk leeram na ci barkeem bu fekkee ne gaañu baax ñu ñëpp dañ ko nekkoon ba te defalul leen lii nu leen defal nii nu leen fonk fonkawuñu ko taxawuñu ci matal seen àq seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfe woon li xukkamaa yi wax ne amal li dunyaa ka annaka laa tamuutu abadan wa amal li axirata ka annaka tamuutu xadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonte ne dafay yemoon ci ñoom képp ba léegi duñ taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di yoon wu ñu tàllal woo xam ne nit dañ cee war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkee ne seet nañu ne ñooñu dañu noo liggéeyal liggéey bu rëy nu bañ a seet kenn foo fees lu dul ñëpp bokk bëggandoo ñëpp bokk wormaal ñëpp bokk sàmm ñëpp nu bokk ndey bokk baay yëpp li nga xam ne moom la ñu alxuraan wax ak li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne al muslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum ñi gëm ñëpp seen deret benn la ki gën suufee ci way gëm ñi bu fasanteeg nit wëllëre wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga ci kaw kenn ci ñoom ñu seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sulli seeni jaloore seen masuliya di lu mag ndax dañu ne ida zalla al aalimu zalla bi zillatihi aalamu koo xam ne benn njuumte boo def mbooloo mu dul jeex topp sa njuumte loolee jàppe ko dëgg te duñ ko fas yéene bàyyi mukk te loolu lépp yow yaa koy gàddu sa responsabilité rëy na lu mënul moo tax ma xam ci jaadu na doom na ci wane ku yasan salaam تسمتنا سن آدم موتخ مخم كي جادنا دوم لكي سن بفرلنا تواني كوي حسن سلام سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان